yonent nee na tabaski góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp la war lenn rek ay tax mu wàcc la mënoo ko waaye soxna si ci kër gi su dee mën na ko day jënd xar bi ci kër gi bu ko mënee day jënd doom ji ci kër gi bu ko mënee day jënd xar contrairement ak ñi la xar yu bari yàq la xar yu bëri day yàqoo yàpp bu bëri bi day yàqu loolu ay caaxaan la ñooñu ci logique la ñuy dox parce que dañ gëm ne kër gu am juróomi borom kër nga jënd juróomi xar mënuñu koo lekk ku leen ko lekkaloo <laughs> ku leen ko lekkaloo <laughs> lu tax saraxe woo ko ñaata yoon ngeen gis nit ñi di yalwaan fii bésu tabaski ñooñu ko leen saraxe yàpp soxlawuñ ko lu tere nga reen di sa saxaar mi dem saraxe ko c'est-à-dire yow tiyaaba jën la bëgg a xañ nga di ko jëndee yàpp wu yàqu sa xar mi bu dee dafa fees seen kër saa yi génnal saraxe ko Sénégal gii de moom maye fi xar may fi yap nañu waxante deug jafewu fi aka fee yom amna keur yo xamne xam ne seen xar du fanan ci bes bi lañ koy lek mu jeex ku len may yap nu jël te montant am nañ tabaski waye tabaski ma sax doyul wa keur ndax na nombreu keur go tollu ta seen doole yeggu fa kon ku meun jëndal sa xar bo gisee ne seen keur da bari boko rendé xolal ki nga yakane meun nako na ko nga yobul ko mba ñi ngi gis ñuy yalwaan nga jox len ko sunu borom neena du yàpp wu bare ci ngeen di amee yàlla du deret ju bare ci ngeen di amee yàlla waaye seen ragal yàlla gi ngeen ko ragal ba li mu leen sant wu leen koo ñàkk def ragal googu ci ngay amee yàlla yow nga man ko ne duma tabaski dem jënd sa jesneer bu baax teg ay way sam ah yow yére ñaar fukki junni ko ko sol mënoo jënd xaar xaan baaxul jëndal xaar bu la yàpp yu sonalee maye ko nga te yaakaaruma ne li fi yàqu ci yàpp mën naa baree bare ba amoo koo ko jox xanaa da nga naan xamoo koo ko jox xëy na waaye boo ko laajtee rek am koo ko jox de bu soobee yàlla su ko defee théorie yooyu ñu moytu ko ku mën defal ku mënul nag wàcc na la loolu tamit foog ñu xam ko jarul leb jarul leb ki nga xam ne ñaari yére la am waaye nee na benn yére bi doy na ko mu sañsee ko nee na beneen bi na ko jaral mu jaay ko jëndee ko xar donte terewul am na boroom xam yoo xam ne tabaski ki mu war mooy ki mën ren ba deewon moy ki nga xam bu génnee njëgu xar mi du ko laal ren ba déwén loolu nag bu ñu ko appliqué moom Sénégal ñu fi tabaski duñ bare de ki mom, xam bu jëndoon xar bi amu ci soxla ren ba deewon du ko laal nako fi nak mom demewul nonu mom <laughs> fi mom contrairement ñi ci gëna son moy ñi ko mënul sax waye du tere bu dé sa facture courant dafa taxaw sa facture ndox sa location sa fayum jang yep taxaw nga gis ko ni war ko fay te boo jëndee tabaski doo ko fay bàyyi fa tabaski ma te fay sa courant bi ak sa ndox mi ak sa location bi soo amee chance mu des loo jëndee xar nga jëndee loolu mooy dëgg ndax yee ay bor la ah. da nga consommer ndoxu jàmbur consommer courant wu jàmbur dëkk ci këru jàmbur di ko fay weer bi dee na nga ne naa ko jëndee tabaski yàlla baax na non génneel ñooñu ba noppi soo deselee baax na boo deselul nga xam ne loolu la yàlla dogal yow mënoo ku mën na dimbali ki ña fa nekk dañoo xaw a néew doole sañ nañoo xool ka ca mag ñoom ñu jël la ñu am ñu dimbalee ko ko mu jënd xar yéene leen ah sunu grand frère moo ne ci kër gi waaye liggéeyam demeewul noonu ñun ñii suñu liggéey demeewul noonu mais ñu ne saa waaye ñun suñu mille 15000 15000 yi nañ ko jël ñu jox ko grand bi dimbalee ko mu jënd xar mu baax mais da ngeen ko koo dimbalee doona ko nañ cotiser de non moom mooy jënd xar mi moom daal di leen yéene yéen ñëpp. tabaski tiyaaba ji la ñuy bokk mais kenn du ko cotiser moom nag su ko neexee mu jënd ne yéene naa ñëpp garaawul mën ngeen a bañ jënd amul problème waaye ci kaw ñi nga wax ne yéene naa leen buñ ko mën parce que ki mën kenn du ko yóbbu ki mënul la ñuy yóbbaale loolu mooy dëgg su ko nee na bu mënee doon xarit moo gën su mënul doon xar mu góor na doon xar mu jigéen su mënul doon xar mu jigéen na doon xar bu ñu tàpp su ko mënul doon na doon bëy donte Sénégal amuñu aada boobu te dara nekku ci toujours ma wax ne gouvernement bi waroon na exiger ñiy indi daral yi coggal yi ñu ciy dugal bëy ak xar mu jigéen parce que man lii ma gis ñu koy defee tabaski loolu santage borom kër yi waaw sharia nee na xar mu góor baax na xar bu jigéen baax na xar bu ñu tàpp baax na bëy baax na coggal yépp ñu indi xar mu góor kese loolu mooy jënd leen bi par force <laughs> mais loolu du sharia coggal yi dafa waroon am ay xar yu jigéen ak ay xar yu góor ak ay bëy. ñu xamne ne mën na tabaski mais dama ci dalal yi nga wër bëy do ko gis demal nga wër xar bu ko gis mais c'est pas normal te gëm na né état bi amna droit forcer ñi indi xar yi daral bo ci dem na am yu yujigen yu jigen ak yu bëy loolu gis nga bu yagge ci bëtu nit ñi ñu am problème tabaski xar mu jigen ak bëy liñ ko dul gis motax mbir mi di rëy ci ñun ñu naan la tabaskee bëy tabaski bëy lu ci nek yap bëy man xaw lu ko tax kon complexe bobu fokk ñu dindiku xar mi bu amee juróom-ñetti weer sax nee nañ baax na bu amee fukki weer baax na bu amee fukki weer ak ñaar baax na